waaw am naa ci daal anniversaire sama mag. Hmm. ku la ñor. waa kii nag suñu maam la. Hmm. Eh. laa yeewoo hmm. vraiment. moom laa waaw kii daal Ibou Ndim. <laughs> ñaanal rek lañ koy def. mu yàgg fi lool. loolu Diouf macha allah. loolu foor a gàcce ngaalaama rek lañ koy wax. parce que da nga naan jiite jiite réew mi. Mhm. yombut. réew Sénégal boo xasee. ba jiite ko ba jël ba dem ci jàmm ak salaam santal. Mhm. donc ñu ngi lay souhaiter un très bon anniversaire maam booy. di la wax dundal ba say may di baawam ndax nag. jiite woon nga réew mu. bien vrai que waaw bien vrai que man Abdoulaye Wade macha allah. Mhm. suñu maam Abdoulaye Wade moom laa fi gën a fekkee. waaw mais vraiment ci ay dégg-dégg. nga xam ne tey jii juddu nañ ba dégg ci suñuy nopp macha allah ci seen i xeetu liggéey yu baax. Mhm. kon dañ ci dañ leen ci remercier bu baax a baax a baax. Mhm. ndax nag yorum réew. dafa nekk lool waaw euh, kenn macha allah yor na ko ci yorin bi rafet. Mhm. Euh, dem jot mu dem ci demin bu rafet. Euh, te dara ñaawul. man tamit kon li nga wax rek maa ngi fi fekk Yirim Fall waat di njaag Daara waa di njaag. yuq mi ci songum xeer man moom laa tombé. Ah waaw man moom laa tombé. man bi ma ko tombé sax doon naa ko politique. maa ngi woon Tëngéej Rufisque waaye sunu papa Abdou Diouf sunu maam sunu xarit di nit ku baax tamit eh, def fi lu baax àdduna nii la mm. eh, bu rafetee fàttaliku bi day rafet eh, macha allah yàlla na bés yi gën di dellu see nga fekkee ko te tal ko ndax àdduna jarul dara ku ko jàpp-jàpp la bu doon jeex mm-hmm. jeex ci Alaaji Njuga Kebe bu doon jeex jeex ci nee naa la sama sama sama waaja sama ndaanaan la mm-hmm. baaxkat bi nga xam ne macha allah dafa gën mm-hmm. suñu doon fo sax dañu doon tudd seen tudd seen i tur kon dara jaru fi dara dara euh, euh, ndax bu fekkoon du jeex rek day jeex. waaye nii ma gis nii xam naa ne dara du fi des. Euh, na rafet rek te bañ a ñaaw. koy ñaanal bu baax gudd fan. waay waay yàlla suñu borom defal ko tawféex ak tey si. waay am na yu am na yu jox nga sama bés. waay ndeysaan yàlla na jàmmam yàgg. macha allah. ayca mi ngi noonu daf ñuy daal di neex loolu. sama bés bi dem na xeetu anniversaire mi ngi ñëw kay ndax anniversaire yi moom. tey macha allah wax naa leen ko sànq dafa ala. dañ koy gaaw ayca merci di ko may joxaat Eh, ay ngi ni waaw kii nag comme comme sànq ni ma ko waxee anniversaire yi ala daw me waaw kii ci la bokk bii ci la bokk waaw Aïda nit ku baax la macha allah Aïda ah? bal kër gi Aïda kër gi <laughs> nit ku bëgg Serigne Babacar rek la woonu Aïda <laughs> dëkkee woon ñun lu dul di ñu conseillé di ñu digal lu baax waay di ñu liggéeyloo waay bu liggéey jotee gisoo dara lu dul liggéey waaye nag di nga kaf ak ñun. di nga reetaan ak ñun. amul ak kenn xaar ma di wax dëgg yàlla dañ koy remercier bu baax. amul ak kenn xaar ma yàlla di ko souhaiter nag un très bon anniversaire. may mun a yónnee na ma ci yow. te boo fàttali ko may mun a moo ma la présenté woon. ci cadre liggéey beeg ci cadre yépp vraiment. may mun a mi ngi lay sant di la gërëm di la souhaiter un très bon anniversaire. di la ñaanal gudd fan wér gu yaram yow loo dund doyul. loo dund doyul Aïda. macha allah ma ngi koy souhaiter un très bon anniversaire. Mhm. ku ne xam na ni fii ci kër gi la nekk Euh, macha allah jom ji bari loolu fu la ji bëri loolu donc mm. ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla sàmm ko aar ko bàyyi ko fii nag ah ñu muy gën di euh, nekk fii ñun tamit euh, vraiment ñu koy féete normalement donc amiin dafa gën dafa gën riis te lu ngeen ci xamul yëgul lii de yëgu ko ah lii waa ci lii nekk nii ko ko wax ñu ngi koy souhaité ñu ngi ñaanal yàlla suñu borom defal ko taw ak tay ci mu nit ku baax la la dafa baax lool fa tubaarakàlla loolu ñun ñi muy liggéeyandool xam na nañu ko liggéey bi fonk ko respecté ko mhm. barki démb boo jaay laa na ci rajo ba amul kooku di jox madd ma tudd ko rek mu ñëw eh, màdd ji macha allah yàlla na sa jàmm. macha sa liggéey lool fonk mhm. sa liggéey lool ragal yàlla boo dajeeg moom. amiin waay am na xool na ma rek ma am benn pib ma door Omar Saba la woon mu ne ma ajjatu booy waaye lii de ma ne ko ay de yaay sunu xar rek mu noppi <laughs> ree daw. Ah, dafa gën baax liis waaw euh, nga ma sax Omar Saba incha allah nee na moo yor sa gi. ah kon loolu dana neex bu ma ko sàjjee ba photo waaye Omar yaa ngaa def baax <laughs> waaye Saba nañ ñu door sax ndax boo xam maam Seydi am na ko ci topp. Omar sama baaxkat bi gën riis. maam Seydi. borom piki kenn du moom. kii kan la. kii kan la. Aïcha kooku lañ naan bu sa jóg. Moussa Diop dañ koy souhaiter un très bon anniversaire. di ko ñaanal gudd fan wér gu yaram. vraiment suñu borom def la magum kilifa. xéewal gu saawaan baawaan moom lañ lay ñaanal. ak jàmm ju sax dàkk macha allah de la part de Fatou euh, Cissé kooku di. Moussa Diop sa mi ngi koy ñaanal bu baax. c'est un très bon anniversaire di ko souhaiter la la totale. mu mm-hmm. dund ba euh, may di baawaanam. mu ngi noonu. Mm-hmm. amiin amiin yàlla mën na lu ko raw. ayca ki ci topp. ayca ki ci topp. maam Seydi Seydi Lo dafa jeex wala. non non am neen ay anniversaire. man am naa benn je crois amoon na beneen bu may wër ku dëkk mu Mauritanie. wax ma naa ko jàllale affaire bi xaw na ma réer tuuti. dafa ma mhm. metti mhm. su dee mu may dégg na ma ko tëmbalal rek. ndax du ma mën di xool portable léegi rek incha allah. du ma ko waaye waaye xawal leen ne nam MD. MD MD dañu ko nam bay laax di diwoo MD fu mu féete moom maa baax. <laughs> des na de dañoo mujj di laax sax di ko diw sunu mm. kanam gi ngir nam MD <laughs> ah. ayca alif yi dafa jeex. waaw a baax. moom waa ji Maba borom borom tëngeej. waay su ma dajeeg Maba sama waa ji nga xam ne bu dem Touba moo gën ci man moo mhm. ma ne ko loolu for na mu ne ma boo gee nuyul ma ko. Mhm. fi ne a ngi may amul bilem. incha ana yeneen anniversaire dafa jeex. yeneen yi ñu la yónnee woon jotoo ci am ndim ah. xoolal ba xam. yónnee naa ko ko maam Sidi. ayca xoolal. waaw ñu ñëw ci loolu waaye ajaratu damay profité bu baax a baax a baax di nuyu ñi nga xam ne samay maam lañ mhm. ku ci mel ni maam Nday Kase maam Nday Kase maam Sincu Si maam Sincu Si maam Sincu Si maam Ummi Keneme waaw ah, maam Aysata vraiment Aysata Ba maa ngi leen di bu baax a baax suñu maam booy maam tedd si ñoom ñëpp maa ngi leen di bu baax a baax a baax Marina waa waa waa Jurbel waa Jurbel vraiment dañuy kii bu dañuy seetaan wane ma bu baax a baax sama maam yi kenn seetul tëtul macha allah. ñëpp ku añ rek yaa ngi jàkkaarloog sa télé. ñu bu baax a baax bëri nañ sama maam. très bien na ñu ma ci tudd léegi de. sincu si sincu si waaw am na sincu si. waaw am na Umu Keneme. Mm. am na Nday Kase. Mm-hmm. am na kook nga xam ne moo di Aysata Ba. waaw lu ñu dund doy waaw ñoom ñëpp macha ak sama yaay booy. maman Aji Ndiaye maman Aji Ndiaye aussi maa koy nuyu bu baax a baax maam Sidi dafa baax wala. Mm-hmm. ñu ñëw ñu ñëw ci. yaayu mu ngi nii. waaw waaw ah. doomi Mambes kii taawu Mambes la. <laughs> yaayu Jóoba. yaayu Jóoba taawu Mambes a ngi nii Mambes mi ngay dégg. Mambes de cassation. kii taaw bu jigéen baa ngi nga xam ne daf ñoo bëgg solol ci li muy ñaw. ak ci li muy jaay doon yaay Fall Pire yaakaar Cheikh Fall Serigne Touba. Mm. Euh, ba pare mbir mi doy waar yaayam bëgg Serigne Babacar Si rek la gëm. Euh, waaye macha allah doom ju mu jur murid la. Eh, yaayu Jóoba mu ngi nii kenn du moom sama waa ji yaayu Idi. Mm. Eh, kenn du moom taawu maam bés bi baaxkat bi gën. Mm. Eh, riis taawu awa baa ngi taawu njéeme baa ngi nii yow loo dund doyul. neena dina ñëw sax def ci macha allah ci seen pat yi am fii. Euh, dina ci jël te dinañu solal ñu génn loolu la wax mu ngi ñëw lu rafet mu ngi en face asilem yaayoo yëkkati woon kuyu xar ma rek may ma mm-hmm. maam bés waaw maam bés mu baax borom cour de cassation ku fa mu ah, dara ak wax nekk boo xam ni euh, moom itam man maa ngi koy ñaanal bu baax waay waay yaayam yaayam ku baax la waay moom itam xam naa ni noonu la noonu la mel euh, daa gën riis kéwal du tëb a jëbët gën riis yàlla defal la tawfeex ak taysir mucc ak mucc la joobaa te xale la sax ndeysaan sa waay xeetu suuriram lu ndeysaan allah kooku. doomu maam bés ay yaayam. waay ajaratu waaye itam ajaratu mooy yaayam. macha allah waxal un très bon anniversaire. la ñaanal gudd fan. wér gu yaram. amiin ah, nga am sutura gu sax dàkk. man de gisuma maam bés waaye xam naa ne macha allah. moom moom moom mi jongo ma la. <laughs> waaw moom dafa jongo ma dafa yàqu. jongo ma kumba booy. macha allah. ndeysaan. waay waay am na am na keneen ku ci topp waaye dafa mel ni vidéo bi dafa a diis waaw kooku nag sama euh, petite sœur. Euh, mu ngi koy wax euh, Binta Fall dama koy. comment elle t'appelle waaw. nga ne ma ne ko comment elle t'appelle. Binta Binta Fall. waaw c'est la Binta Fall loo dund doyul yow. non non dañ ko doon takk nag ma koy. dañ ko doon takk waaw loolu fort la de. reménage bu baax a baax ah non. waaye man Binta yëpp laa bëgg am naa benn Binta boo xam ne sax sama doom la. biñ koy takk man lañ ko may. première nday kon Binta bii nga wax nga ne nu mu tudd. Binta Fall. Binta Fall yow Fall biram loo dund doyul. waaw Seydou Fall. wallaay gaawal wàll ci sama rakk ji Marina ñu ñëw. ah lii la ci mën a. waaw léegi rek incha allah. mooy ah. noonu ah, euh, ñu ngi koy wax ah. yàlla fa toog seey fa du dëgg. amiin macha allah hmm? waaw comme euh, ñoo mën a teral ñi anniversaire war na ñoo mën a teral. ma ne la nee naa la kay mari daal li nga sàcc dafa rëy. bi taafaal mari daal yaa ko yëngal ba teg na la ci saal bi. loo xam ne hmm. damaa daaj ji fàttali na man rek des bu hmm. yàgg. ma bi mu ne la comment elle t'appelle. waaw waaw loolu. <laughs> daf maa fàttali indiwaat ko. dafa am eh, fàttali xadi ajal la tudd. xadi dafa bëri tiitar mais jàngul. bu ñëwee ci ci dëkk bi. maye te Noza nee na ma maa ngi bi. xadi du ma la bi xadi ah, di ñëwee ci dëkk bi di doxantu nii rek di dox nii rek. waaw ah. da leen teg beneen xale bu jigéen. mais xale bu jigéen ni ko bonjour xale ni ko bonjour mu ni ko comment il ay aywaay. Khady ni ko moi je s'appelle Khady et toi <laughs> Khady xam ne ñoo benn tur mu ni ko ah bon tu s'appelles Khady la ilaha illallah pourtant on a le ah, même s'appelle <laughs> yow non Ibou dafa baax non lii ëpp na euh, moo tax euh, Marina fa mu génn rek la dugg euh, di nuyoo bu baax a baax tamit duma fàtte Noza maa ngi lay fay bu baax sëram bi nekk Mauritanie Euh, man la bëgg Rosso Sénégal man la bëgg man lay TikTok man lay nooyee waaye aji tamit bu leen ko fàtte mm-hmm. aji borom sandis bi fii ci sunu koñ bi aji mu baax mi aji waa kii kan la eh! bi ma ba pare la àdduna song ma jox leen ni <laughs> riis judduwaale sama waa jaa ngi gën àdduna danga mën gën danga dugal ñaari biis si deux parties deux buts de Ndim Ndim yaa mën. ay waay. Ndim yaa mën sigil naa seen TV. oh xool sigil naa seen TV. yow kii nag gën riche. Ah, deux buts nga teg deux buts. Euh, yéen ne fu ngeen toll ci match yi. actuellement dem nañu quart de finale. ah yéen yéen seen équipe ak ñan ñoo fee titulaire. ah mais ñan la. ay xam nga ñoom ñëpp ñu ngi ci biir. ñoom ñëpp mais Mbaye day moom Mbaye. mbay moom ramasseur la. mbay mbay mbay mbay dégg naa mbay dégg naa mu ne. mu ne mu ne nañ ko teel a dugal buñ ko teel a dugal ndax ñi fubal dañoo bari mm. ñu ne ko léegi nañ bàyyi tuuti ba mu xaw ba mu xaw a guddi tuuti mm. mu ne non bu guddee du ma gis <laughs> moom kay moom kay lay bàyyi jàmbur eh, yàlla baax na ma ñu ngi lay jaar bu baax a baax kuddisi mu ngi leen di bëggee ayca noonu kooku nag euh, di di kuddisi mu ngi lay bëggee cheikh produit Kumba Si ah kuddisi mm-hmm. kuddisi ñu ngi koy jaar bu baax a baax kooku di cheikh produit euh, instant bi ñu ngi ci euh, affaire yi yaa ma gën a xam waaw yokk cere dolli ñeex Cheikh bu la dara naqari yow booy jàll muy jeex. waaw commencé yëf yi ci bisimilahi rahmaani rahim. Mm. incha allah eggalee ko ci alhamdulilah rabbil alamin sama waa maa ngi lay remercier bu baax a baax a baax ñu ngi ci montage ak yooyu xam naa ne di nga commencé daw. incha allah rabbi fii ba suba. incha allah waaw fii ba suba wala gannaaw suba rek incha allah. mi ngi noonu hmm? waa sañ sañ Marina ñu ngi lay bëggee. waaw sañ sañ ku ci mel ni ñoom Mbaye ak yaa sañ hmm? euh, ñu ngi lay bëggee Kuna euh, Cuna Eh, Cuuna mu ngi lay bëggee doomu mbay Mbaye eh, mu ngi lay bëggee doomu Ndeye Absa ak Dirianke ñu ngi leen di kontaane yéen daal yéen a ko yëngal macha allah waaw ndeysaan macha allah man sant ne laa yaroo xam nga